sëriñ yu Mbacke daane wax naan dajale mbooloo yomb na lool waaye téye ko mooy jafe Cheikh Abdou Cheikh Abdou Dieng mii nag li wax day loo xam si nii su fi amee rek ñëpp jariñu mooy yokk làmp yi ba mu leer dolli ndox mi ba mu doy jël jigéen jox leen financement ñu am lu ñu jàpp di yóbbu seen i kër dimbali seen i jëkkër yow mi dajale mbooloo mi tan tax ñu daje fi nag yàlla la yàlla yombalal loolu te nga mën koo joxe ci joxin woo xam si ne oyof tooy ci yow te du la yàqal dara mbooloo mi nga xam ñoom si ginnaaw nag ci ginnaaw soxna maam say miin nga téye ko baax a baax ndax bu wun la de maam say la ñu téye ñu wax la ko nag ku la jàpp ku ne maam sayee tax na la leer saa soo yoree say milliards ak say milliards te faali woo maam say ñoom teguñu la fenn ngeen baal ma àq ci loolu ndax dëgg dafa neexul nag ndax man mii de wax xaw ma la te maam say tax ma jàpp la man waaw loolu rek a fi ne kon nag damaa bëgg ngeen jàpp maam say mii jàppale kii mii jàppale te yàlla tax naka ñëpp def ku ci bëgg maam say nooy def dama bëgg ngeen yéen ñi bëgg maam say ni ngeen di def nii leen jox ko carte wi ngir yàlla jox ko carte wi ngir yàlla jox ko carte wi ngir yàlla. saxa carte bi ngir yàlla mam say mi ko ko jox doo ko rëcc mukk ndelu ma way way te wayu ma say de sama way du neex ndelu ma way way te wayu ma soxna jaara sama way du neex ne maam say yow yal na dee wopp saytaane taxu te yàlla la far la cet xam nga loonu deseel bëgg nga nu lool jox nga nu sa xol loo nu deseel man say loo nu deseel lool nu deseel bëgg nga nu lool jox nga nu sa xol nu deseel maam de loo nu deseel bëgg nga nu lool jox nga nu sa xol aw waay balla bi mu tegoon ñoo xam suñu aboo say mi cellulaas bi di ko sant baax rafet tewayam di sant sëñ Cheikh Seydou bu baax nak ci li mu def nga xam bu ko defee man la ko defal def ko njabootu sëñ Cheikh gep ndax bu dañu ko ci politique bi asnam eh, dong tan ci yengu kon bu nekké ma yaande gi ci yengu ma fekk ma ak sama xarit sama doomi nday di kenn ci man maam no Dieng ñu daje ci sëñ Cheikh wo ko ñu di laaj sëñ Cheikh digal nak dama bëgg yëngu ci politique bi sëñ Cheikh ko ànd ko maam Thierno Dieng Cheikh ko wol maam say ma ak moom ak ngañ jóg ko nii mm, ko laaj Juuf waxee dem sëñ Seex ma ne sëñ sëñ Seex ne ko maam say bi mooy maam Cerno maam Cerno mooy sëñ mooy maam say te loolu muy dëgg biir maam Cerno maam moom sama diggante bi àjjuma gaaw ko kon nag bu ko sëñ Seex waxee loolu ànd ak maam bokk liggéey ndax yéen bokk fu ngeen doon yéen a bokk fu ngeen sottee Seex dégg lool nag tegu ca leen bool ci ab yar ak ak taal dugg lu ma yëgut du dugg lu mu ne nañu sama ko waxtaan man lu muy tax dañ ñëw tàggu ma ci loolu boo ko def ndégul sëñ Seex dama koy def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 donc lu xam jafe-jafe dañ ko jaar àggale fan ko war a àggale ñu jàppale leen ñu leen jàppale ñu incha allah. kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu di la siyaar kenn ku nekk ci sa tur maa ngi jégalu bu baax nag jégalu bu baax xam naa ni wax ji du am solo ndax xol bi dafa sedd ba wax ji gaw ma ni dana dana dana sotti waaw wax ji du sotti waaw ndaxte man daal xam naa li ma doomu aadama lebal nu ma leen koy fayee laa xamut. ak naka lay def ba fay leen ndax euh, jotaay bi yàgg na lool jotaay bi yàgg na mbooloo mi macha foo ko takk paase na ko ca mel ni euh, ba fii may wax ak yow nii dégguguma sax dama bëgg ñibbi walla ñoo xam ni dañoo jóge ci jotaay bi di ñibbi mu mel ni kon man xam naa ne war na maa góorgóorlu bu baax ndax ay nit bu fekkee saa borom dafa dogal nga ñëw dëkk si ak ñoom mu mel ni dañoo jël seen lépp jox la ndax lii koo joxut ab xolam mun loo ko defal nit ki jàpp gum la jàpp doo nga mën a tax mu defal la lii ngeen bàyyi seen lépp ñëw toog fii depuis ca tàkku tàkkusaan ba léegi ngeen toog fii loolu moom xam naa ne man naan damay wax ni ëpp na ma jooju jëf moom mel na ne mel na ni mel na ni dépassé na ma ginnaaw bu loolu jàllee maa ngi siyaare kilifa jotaay bi ñu koy wax euh, soxna maam say Mbacke mu sëriñ Cheikh Say sëñ Cheikh Say di sama wasila di sama lépp daf may wax ni ma maay sa sëriñ waaye maay sa waajur fu toog fu ma ko fekk ci biir mbooloo mi noonu la koy waxee ñëpp di dégg loolu yaakaar naa bu bëkki démb rek ci xolli gerte bi moo sasoon feddliwaat na ko ci kanamu doomu adama yi ba woo sama waajur wu jigéen bi nga xam daa teewoon ca xolli ba mu wax ko muy dégg kon ma am ci moom ab cër boo xamante ne si loolu xañ na lu ma suñ borom jagleel yàlla dogal bi ma doonu moon nit koo xam ne dama daan yëngu ci wàllu politique yooyu ndax daf ma daan dama daan nekk di liggéey ci yeneen xeeti liggéey yu bokkul ak politique eh, léegi nag bi ma demee ba gis koo xamante ni si ne dafa mel ni dafa di jàppale aw askanam ñu koy wax ministre Mame na Dieng ministre Mame Thierno Dieng ku ñuy wax euh, Ngagne Diop di sama doomu ndey di sama xarit di sama lépp présenté ko fii ci dëkk bi ah, di ko liggéey liggéey bu rafet muy guddi muy bëccëg du yendal fanaanal ñooy ànd 24 heures sur 24 la ñuy ànd di liggéeyal Mame Thierno Dieng fii ci dëkk bi guddi dañuy xëyee suñuy kër dem ba 3 heures du matin la ñuy tës wala 2 heures du matin ñuy jàpp ci liggéey bi di ci dox di ci wax ba xaaju bi dina ñu ñëw waaye loolu lépp li ko waral man comme gis naa fi mam Thierno ñu jàppale askanu tuba askanu tuba ni mu leen di jàppalee daf ñuy wax nañu dem leen ci askan wi ngeen laaj leen luy seen soxla suñ leen waxee luy seen soxla na ngeen ma ko eggee su ngeen ma su ngeen ma ko eggee danaa ci def la ma man su mu su fekkee yàlla dogal na moo mënu ma koo def danaa ko jàllale ci kilifa bu mu defal loolu mu mel ni kon bépp soxla bu ñu ko mës a wax ni ko askan wi ñoo ko soxla loola sax fa saasa la ko daal di def soxla ñu yóbbu ci moom yëpp def na waaw ginnaaw bu loolu jàllee xam naa ne wax ji boobu ni dana mën a sotti ndax daal li ma xam daal moom mooy nit ñi daal maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen gërëm bu baax di leen sant bu baax te leen di ñaan tamit ñii ñu mobilisé woo tey yi nii ci fii ci jotaay bi buñ te àggee